du éducat à et le coach s'en de sa part ici, sur le terrain. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Petit Rebond. Petit Rebond, comme nous l'avons fait, c'est leen de demal si basket. club ngir rek valoriser de basket-ball basketball sénégalais tey nag ñu ngi fii basket club wala sax Thiaroye basket club xamaguñ bala si kon léegi-léegi lay doon Salam salaamaaleykum salam alaikum, Boki yi Amni ni yi namoon lañ leen xam nañ ne eh, gëj nañoo def émission comme niñ ko doon defee rek ñëw ci benn club ngir valoriser li nga xam ne mooy basketball sénégalais en passant par euh, la petite catégorie. tey ñu indil leen euh, petit rebond fii ci euh, jàmm gën basket club wala sax Thiaroye ba léegi maa ngi laaj ban la ci ay xamaguma ban la ci mais xam naa coach dama koy nuyu rek incha allah ñu nuyu ko mu nuyoo après ñu laaj ko Pikine basket maanaam Pikine basket ba Pikine sonal nañu. Teungueth <laughs> ya? basket club wala Thiaré basket club wala Diamaguène basket club man xamaguma ban la <laughs> ci après mom mu wax eh, inshallah ban lañ ci ñew inshallah coach ñu lay ni ma ngi lay fay coach iya, la kan man ma ngi tuddu Souleymane Badji mhm. dëkk Thiaré Guedj dëkk Thiaré Guedj ya. Souleymane Badji dëkk Thiaré Guedj euh ñu nek ban club d'abord man fofu lay dëkk commencer boobu bu dee club bi ñu ngi jàmm gën ñu ngi jàmm gën bu dee centre de formation bi ñu ngi caaroy centre caaroy maanaam club bi mooy jàmm gën centre de formation bi mooy caaroy kon loolu nañ si ñëwaat léegi waaw incha allah kon su euh, bu ma la doon laaj kan mooy euh, Souleymane euh, lan nga ñuy wax waaw Souleymane de benn bindeef la boo xam ne Basirou Badji moo ko jur ak aadama Diatta maa judo juddoo kan Aswa ku ñuy wax camp Aswa Liberté 6. Aswa waaw fa mhm. judo wow waaw fa laa juddoo ba 2009 sama pap si la jël retraite si lañ ñëw tuxu si caaro yi fii. Aswa nga judo camp kan Aswa nga judo ah, Aswa cela veut dire que. Mhm. Kan, camp Aswa fa nga defee basket. fa nga njëkk a defee basket. waaw fa laa defee sama lépp. mais basket nak si ba nga jàngee basket si ba laa jàngee basket. sa formation nu mu demee en en catégorie. waaw man dama doomu basketteur. ndax sam papa mooy Basirou Badji. Mhm. moo mujje jël coupe d' Afrique en 97. Basirou Badji Basirou Badji waaw mhm. mooy sama papa. mun naa ne ci xaalisu base sax lañ ma ngéntee ci basket laa juddoo parce que damaa mhm. judd fekk paa bi basket ba pare nekk coach donc dès le bas mu initier ñu def nañ pipi def nañ benjamin poussin yooyu yëpp def nañ ko sibak lañ ko defee. maanaam commencé nga si base bi ba carrément mini basket dama kaa def. sibak laa ko defee waaw. sibak laa ko defee neexoon na métti na wala. bon neexoon na état jour ah. <laughs> neexoon na parce que neexoon na métti na. mais ñàkk comprendre parce que sama papa. bien vrai que ak lu mu def ci basket bi yëpp. musul woon bëgg benn doomam basket moom yéenewam yëpp moo nekkoon doomam yi nekk ay médecin ay docteur ay général l'essentiel daal bëggul woon ñu embrasser métier basket bi. lan moo waraloon loolu. waaw moom moom éducation bi la gën a la gën a privilégié quoi études yi moom loo ko wax étude étude étude bon ak jaar-jaaram ci basket. moo taxoon dafa doon wax moom buggul woon doomam yi topp ko ci loolu quoi. Mhm. waaw moo tax daf ñu doon écarté pour ñu bañ a dugg ci basket bi. mais virus bi ëpp ñu doole. virus bee leen dugg. <laughs> waaw virus bee leen dugg moom na ngeen jaar feneen. waaw mu ngi mu doon waaw mu ñu doon dugal sax. pour ñu def basket bi ak jàng wi ñu ngi si doon initié mais dañuy dem benn moment boo xam ne notes yi dafa doon commencé xaaw a wàcc mhm. voilà moom nag mu bëggoon vraiment ñu concentré woon ci ci ci étude yi bu baax a baax a mhm. baax di insister ta si loolu ka mhm. parents yi maa ngi koy wax sànq si commencement bi ma ne parents yi nañ jàpp bu baax si jàng xale yi dëgg la coach yi tamit war a ñoom tamit jàpp ko si terrain bi boo boobaa bu ko boolee rek incha allah coach yi ñoo si war a euh, dina dina mën dem ndax basket bi buñ buñ seetloo ku jàngul daanaka ku jàngul doo dem États-Unis ku jàngul doo dem France parce que recruteurs yi nga xam ne ñooy ñëw fii yëpp ku jàng li ñuy jël te boo demee foofu da ngay jàngaat kon xam naa euh, bu yàgg ba hmm. amoon na problème si côté jàng beeg euh, basket bi mais léegi xam naa ne coach yi ñu ngi si insisté bu baax a baax a baax a baax ñu ngi ciy ñu ngi ciy bay suñu waar ñu ko mënee hmm. moom wax dëgg fa yàlla ku jàngul moom hmm. du du du ñu récupérer seen i notes dañuy jël seen i bulletins dañ leen di suivre seen mhm. emploi du temps ak lépp. Mhm. wax dëgg fa yàlla dañ ciy taxaw bu baax a baax a baax. boobu moom dama ki nga xam ne mooy coach ba mhm. moom day jaar si école yi. xool xool ndax élèves yi mi ngi jàng si xool la xool tamit ba xam euh, élèves bi mu ngi jàng bu baax ak euh, bulletin ak yooyu loolu moom xam naa ne moom bu ko coach yëpp doon def élèves élèves joueurs yëpp dinañ jàng. dinañ jàng waaw mais coach sa parcours euh, basket. ba nga jàngee daanaka joué nga championnat. joué naa championnat. sa sa championnat naka la demee woon ak yan trophée nga am. bon bi may joué gagné naa trophée petite catégorie ak Sibac. gagné naa ko ak suñu génération ñoom MC peut-être moom la ñuy gën a xam ci Sibac. ñoom laa defalandoo génération bi ma fa jógee ma dem douane joué naa fa duwaan tamit joué naa petite catégorie foofu. Mhm. dellu si waat ñëwaat Sibac joué fa senior après terminé Tiwaawan. Tiwaawan laa mujjee joué D2 foofu. Tiwaawan. bon man nag dama xaw a far Tiwaawan. parce que hmm. je suis ma am relation bu particulier ak coach Tiwaawan. Hmm. Matar ñoo defandoo formation sax ci camp ba ASFA bu ñu nekk xale. après dem ba ci biir mu xamal ma comme quoi que dafay entraîneur la foofu. Hmm. wax ma yéeneem ak équipe bi bon ma ne ko dinaa la ñëw jàppale.

est-ce que est-ce que amul ben différence bo xamné euh Dakar amna lum wala Dakar amna lu les lu waaw xam nga Dakar bo xolé petite catégorie presque laa fi ëpp fi jouer <laughs> donc euh, petite catégorie bu zone Thiès maîtriser wu bu baax parce que xawma exactement nu fa parce que le may le Tivaouane senior la fa doon le senior senior la fa mhm. doon jouer mais les deux mom bo xolé bu Thiès ak bu Dakar ñoy yeb peut-être Dakar différence bu am daf leen ëpp club. Dakar dafa bëri club par rapport ak yeneen région yi mais yaakaar naa loolu rek mooy différence petite catégorie maîtriser wu ma zone boobu seen kii nuñ koy defee quoi c'est alors nga nekk joueur terminé euh, fi nga xam ne mooy Tivaouane ñi jékki gis la nga nekk coach kon dafa mel ni euh, jaar yaa ngi jaar ba léegi sa papa fi mu jaaroon waaw jaar nag fu paa bi jaar dafay xaw a métti euh. parce bi fii son moom mhm. macha allah waaw ku dem ba jël coupe Jil moom. waaw macha allah jël jëlaat kay. jël jëlaat waaw jël jëlaat parce que damay ubbi benn parenthèse tuuti ci ñoo xam ne peut-être dañ kaa xaaw umpale. tey suñu neexoon taxaw ne lu mu fi def Sénégal kenn mën nañ taxaw wax loolu parce que ki jël en 81 étant joueur. Sénégal jëlaatu ba 97 mu jëlaat étant entraîneur. loolu yaakaar naa man de ni ma commencé gëstu ci histoire basket ba léegi gisaguma ko ko def. te jël. étant joueur moo ko mujjee woon jël étant joueur. Mhm. ñëw jëlaat ko étant entraîneur. te ba tey jii may wax ak yow kenn jëlaatu ko ñu ngi ñaan yàlla nag ñi fi nekk nii ñu jël ko. incha allah dëgg fa yàlla parce que 97 ba léegi yàgg na. incha allah ñu ngi ñaan yàlla may leen moo tax pour def lu fi paa bi def. or mii sax coupe d' afrique mais coupe d' afrique des clubs jaar jaaram yëpp su ma fi toogoon di ko wax xam naa ni du duñ duñ ci duñ ci jóge quoi. <laughs> mais dañuy ñaan yàlla rek euh, fu mu yem ñu ñëw émission bi. incha allah yéen si yoon bi xam naa ne incha allah yéen di di di xam naa moom du yomb. waaw yomb moom mais yàlla baax na. moom mu ngi suñu ginnaaw quoi gis naa am na ñoo xam ne moom dañ leen jéem a gàllankoor waaye yomb. <laughs> waaw waaw incha mais naka nga naka nga doonee course da ñëw rek yor benn club wala dafa am foo xam ne formation boo xam ne moom nga jaar ba pare. waaw man nag comme li ma lay wax rek. virusu entreneur bi dafa xaaw a dugg sama sama yaram. parce que même bi may nek petite catégorie di jouer sibak lu ci ëpp entraîneur bu ñëwee man la doon wax diriger manam te dès le bas âge dama doon diriger sama groupe. yow dès le bas âge commencé nañ la teg si kanam commencé naa diriger sama groupe bi may nek sibak entraîneur bu ñëwul man maay def lépp des fois sax bu ñu jouer ba yenn système yi bu liwul man dama doon am benn chance boo xam ne su ma si doon échanger moom. Mhm. daf ma doon déglu daf ma doon bàyyi xel. donc euh, affaire bi bon xam naa ni moo tax ma naan foofu la ma commencé dugg <laughs> mais bi ma demee ba bàyyi tiwaawoon euh, si CBC laa commencé nag CBC CBC mhm. avec coach Ahmed Mbaye moom tamit mu nekk sama xarit sama sama copain xam ma xamal ma ni que dafa bëgg ubbi club day defar club quoi mais dafa am ay problème entraîneur ak affaire yooyu mu ñëw sollicité ma ko mhm. ma ñëw jàppale ko ci bu ñu ñëwee ñu toog waxtaan ñu dénk ma formation petite catégorie garçon bi. ci la yàlla dogal deux ans yu ñu fa def yëpp jël trophée minimum, cadet ah garçon yi. après deuxième année bi ñu demaat même chose mais malheureusement deuxième année garçon bi dañ ñu éliminé euh, coupe de la ligue finale. par la suite si lañ ma sélectionné ma nekk sélectionneur régional euh, tournoi góor gi bi. Mhm. tournoi des jeunes bi man ak coach Khadim ma koy nuyuwaale au passage ci mmh. sélection garçon fii ci. foofu laa affaire bi fa la ma commencé dugg. fa la ci laa ñibbisi ñibbisiwaat defar defar defar euh, jàmm gën. mooy caaro bi maanaam da nga def say formation prouver après nga dellu si pour téye sa yëfu bopp. waaw defaat suñu yëfu bopp. waaw incha allah grand yi fi newoon yëpp dañuy solliciter nañu ñibbi si nañu ñibbi si defar suñu yëfu bopp. Mhm. di remercier euh, di ñaanal sax laay wax au passage euh, ki gënoon tax ñi dellu si. Mhm. muy dem ci yalla monsieur Fall. Mhm. nekkoon arbitre international sénégalais. topp ma ci. ah dama foog ñu ñibbi si foog ñu ñibbi si toogaat defar suñu dëkk ma koy ñaanal fu mu nekk gënal ko fu mu jógee vraiment taxaw na ci bu baax a baax a baax ak sama beneen joueur bi nga xam ne tamit sonnoon na ci trop trop trop tamit ma koy ñaanal yàlla xare ko àjjana muy laa yàdd mu nekk ñaari nit yoo xam ne dañoo œuvre pour ñu dellu siwaat fii bu baax a baax a baax yàlla nag mooy mooy dogal mhm. ba suñu dellu si fii bon dañoo dellu si rek année boobu laay laay génn àdduna beneen année bi monsieur Fall topp ci ma allah di ñaan yàlla nanguwul nangu la sañ ndax uh, di nuyuwaale sax uh, de passage uh, nga xam ne moo nekkoon jabaram di Ami Pay Fall di ko nuyuwaale de bi nga xam ne ñoo bokkoon école en plus tamit moo ñu doon encouragé bu baax si journalisme bi nga xam ne moo moom lañ nekk di nuyuwaale ñi nga xam ne tam ñooy waa Thiaroye Info TV monsieur Fall ku bien la woon. waaw naree wax si moom xam

l'éducation la promotion du sport parce que il faut d'abord forger la personne xale bi foog nga tàggat ko mu xam boppam d'abord xam mooy kan xam lu mu bugg doon ba pare mhm. parce que basket bi après la parce que carrière dafa gàtt donc il faut nga tàggat xale bi préparer ko ci condition yu bëri mhm. ba pare nga soog a indi basket bi parce que parce que bu jógee si yow mën na dem si feneen encore. te bu amul discipline la plupart carrière am na faa mën na faa jaaree. lool loolu moom loolu moom dem si insister si côté yi ñu gën see hmm. euh, dugg ñu ne discipline nga ne discipline ñu ne la banlieue nga nekk te am na alors que banlieue la plupart seen seen ndodd euh, am na am na lu ñu siy bind. yow naka ngay dundee ak euh, formation boobu noonu. loolu dafa maa métti xam nga bi may dëkk Liberté 6. anecdote la rek buñ ñu né da ngeen di jouer pikine wala ñu né da ngeen yëmbal suñu boy yu bari dañuy porter malade ñi nek petite catégorie suñu waxal da ngeen doon jouer pikine wala li dañuy porter malade bob mom c'est vrai parce que la plupart pikine mom bok xasse bu dégg rek bu né dakar nga jigé dañ naan waaw xam naa donc waaw am naa fu ma war dem quoi donc entraîneur dem ba ay tafet lañ donc ñu doon ñu dëkkaloo ñun bi ñu fay nekk yëpp bon benn idée bi lañ doon am banlieue ba ay bandé fa nekk bandé lii xam ma rek. Mhm. mais bi ma fi ñëwee daal wax dëgg fa yàlla noo ma gis fi lu lu extraordinaire fi jàppalante bu fi am amul Dakar. Mhm. Dakar mun nga dugg si laaj kër diw kenn xamu ko mais fii ay mètres et des mètres soo laajee kër diw rek dinañ la fa yóbbu. moo tax su ma bi ma ñëwee fii tag pour tàggat xale yi li ma leen njëkk xamal mooy ñun dañuy dëkkal fu ñu dëkkut. il faut ñu won leen ni ki affaire bi fii la mhm. te ñu gëm ko ak ñu bañ ko gëm banlieue bi yàlla daka teral yàlla dafa am lu mu def ci banlieue bi mhm. boo xoolee ci milieu yëpp sport art culture lépp banlieue bi day dominer lépp lépp lépp lépp lo dem banlieue bi da koy da koy da fay gis xale yi banlieue ak sa si si foo mën a dem foo mën a dem da nga fay gis banlieue banlieue jaar da nga fay fekk lépp daal parce que lu ñuy dund la fii quoi fii da ngay dund en harmonie da ngay dund en famille motax eh, may revenir di la wax discipline moy lepp discipline discipline moy xalé il faut nga len di nga len di ñaax ci lool mhm. waaw ñun nak fi ñu ngi bay suñu waar ñu ngi gor ñu ngi def lu mën mhm. pour que xalé eh, nek ci lance wowo ñu ngi ci sante yalla bu baax bo bo légui club bu fi amé ba légui que ce soit ma jaar CBC ba ni ma ñëwé fi yalla ñi sutural amaguñu ben ki bo xamné mën nañu dut baram tuuma né équipe bi lii wala équipe bi la au contraire sax ñenn ñi dañuy naan yéen est-ce que banlieue ngeen dëkk commencé feeti ngeen nekk banlieue pare seen booy discipline ak affaire yooyu alors que discipline du waa Dakar ko moom mhm. discipline ñëpp la lépp doomu aadama da ngaa war a discipline man loolu laa gëm c'est parce que boo dëkkee banlieue sax si nga war a gën a discipliné ba wan leen ne ñun li ngeen di bind si di lee amu si amu si très bien kon euh, coach kon euh, bu ñu jógee si euh, discipline bi maanaam formation bi terrain bi terrain bi naka lay demee waaw bi terrain je sur la technique individuelle. technique individuelle man sama entraînement individuel physique avec ballon man day bi parce que système d'accord mais système pour mu il faut individuellement vous avez le bac et vous aimeriez continuer vos études dans une grande école. Alors ne vous inquiétez pas, Isaac Pikin est là pour vous servir. Après une première rentrée réussie, Isaac Pikin vous ouvre à nouveau ses portes. Oui, vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire pour cette deuxième rentrée dans la plus grande école de la banlieue. Avec des salles de cours espacieuses, confortables et un personnel dynamique et professionnel. À Isaac Pikin, tous les diplômes sont reconnus par le CAMES. Banque, finance et assurance, création et gestion des entreprises, comptabilité, gestion et finance, commerce et affaires internationales, transport et logistique, gestion des ressources humaines, journalisme et communication et marketing et communication. Vous qui avez le niveau bac, vous pouvez étudier à Isaac e Pikin. Comment ça en s'inscrivant à ces différentes filières avec un diplôme de technicien, à savoir DT, comptabilité gestion, commerce international, marketing, gestion des entreprises, banque assurance, transport et logistique, informatique et secrétariat bureautique. Et ça ne s'arrête pas là. Pour cette deuxième rentrée, votre école de prestige vous offre des bourses d'études et des permis de conduire à des prix défiants toute concurrence. Alors, chers élèves et étudiants, une seule adresse à retenir. Buntu en face l'école Notre-Dame du cap pour nous joindre, appelez le 33 854 98 54 ou le 77 365 51 78. N'oubliez pas, à Isaac Pekin c'est apprendre pour entreprendre. parce que boo bëggee def système le bi il n'est pas adroit il n'est bi maniement ballon baaxul c'est système waxuma du dem mais pourcentage de réussite bi nga le soxla doo je mise trop sur la technique individuelle d'abord xale bi bu pas bal bi a pas deuxièmement la petite catégorie man en principe je ne mise pas sur le système parce que boo ko defee da ngay limiter jeu xale bi xale bi pas talent mais boo ko exiger à ce que defal lii rek mun nga freiner talent am. en plus bu dee minime la sax dañ naan la minime amul amul ay ay ay défense zone. ay ay ay défense kii yooyu dañ naan la minime bi en tout cas. kenn waaye sa waay lay doon waaye ba mu jeex librement ah man moom fii xale yi ñëpp fii koo leen laaj dinañ la bon damay jouer système nag parce que comme bu ñu commencé yéeg mhm. cadet di yéeg senior mhm. il faut ma leen di commencé ki mais du ma ci insister

80 wala 90 yi. Mhm. technique individuelle laay def. am na solo waaw technique individuelle moom moom ci laay misé wu à 100 pour cent. am na solo xale man dama jàpp ni basketteur warul limité wu ci poste bi laa mën. surtout ça poste bi laa mën. surtout ça man man gëw ma loolu. tu dois être polyvalent. Mhm. parce que fii mën nga fi jouer meneur nga dem feneen ñu jouer loolu grand. Mhm. mën nga jouer fii grand nga dem feneen ñu jouer loolu. ailier fort ça dépend. moo tax xale bi boo ko limité ci benn affaire rek. je pense que da nga koy da koy lii. day limité wu waaw day limité wu man dama koy jàngal lépp. Mhm. lépp défense attaque mu pare ci post yëpp parce que ku nekk ñaan nga yàlla xale yu bu fi jógee bu demee beneen club mu wala bu mhm. génnee extérieur mu mhm. mais nag il faut nga pareel ko loolu entraîneur bi la yow yaay yow yaay tàggat xale bi xale mun na gàtt nga ne ah meneur lay nekk. yàlla def mu xëy rek njool. mu xëy rek njool surtout ma jamono deux. waaw léegi bu joolee fekk yow da yoon ko liyoon yow bi da nga xaw am part de responsabilité. c'est vrai parce que da nga limité woon màgg moom yàllaa xam. yàllaa xam <laughs> yàllaa xam yow yow mën na nii jékki lépp su ko defee moom bu amee lépp rek bien vrai que lépp du mun day am lu fi am bu demee keneen motali mais mhm. l'essentiel base bi tax ñuy wax na ko yóbbaale xam ne fu mu dem dina mun a taxaw

man carrière xale bi moom amal njëriñ l'essentiel euh, xale bi bu demee mu munal boppam après ndax dina def giving back dina def retour loolu man ñu bëri sax dañ ma si jiiñ naan ma yow daa kenn xamul loo bëgg alors que xam naa li ma bëgg man dama jàpp ni xale bi bu ñëwee bu mu xamulee dara nga def ci moom dara nga tàggat ko yar ko teg ko fi nga ko war a teg bu demee après moom moo war a xam le minimum xam ne man kat démb am na ku ma yoroon man kat démb lii ak

waaw parents yi tamit dañ ci xaw am part de responsable parce que yenn parents yi euh, dañuy viser trop alal bi ak affaire yooyu noonu mhm. mais tamit d'une part dañuy xaw am dëgg parce que man tey jii nii su ma fi yoree benn xale fayu ma ko mu dem ba yenn niveau yi am war a toll ci giir war a dimbali ay waajuram te moyens yi demeewu fa demeewu fa noonu mënoo fi téye xale bi tamit c'est vrai mënoo fi téye parce que tamit foofu da nga koy xoolee sa bopp mhm. mais man dama dama ne na lépp rafet que ce soit mu nek yow xale bi ak parents yi. manam manam demu xale bi. nañ ko waxtaan waaw nañ la ko waxtaan même soxlo wu ci xaalis bi ak affaire yooyu. na rafet parents bi am yëg-yëg xamne yow téelon nga ko sa dom ay moment muy métti ak affaire yoy yëpp nga tàggat xale ba tay club bu ko gis bëgg ko wala fu mu dem mëna jouer c'est vrai mu am sax ben respect. wala ben considération loolu dal moy moy suñu li mais nak ci dommage Sénégal mom loolu loolu da fi bëri da ngay former former former xëy. xale bi nu muy demee sax du demee doo ci am lu rafet parce que da nga ciy dégg ay wax yu ñaaw loolu moo ci gën a garaaw ay wax yu ñaaw nga ciy dégg loo xam ne yow jaaru mosoo si sax xalaat parce que yenn saa da ngay am benn jour boo xam ne dem sax après ñi naan non dafa bañ mu dem dugg na fee génn fii waaw te kii ga paa bi dafa bëgg xaalis wax ci loolu alors que waroon na waroon na ñoo ñëw waxtaan ak moom ne ko lii lii la nga ñëw waxtaan ak club formateur bi mhm. xam nga entraîneur bi sax xam ne ñii ils sont reconnaissants mhm. parce que entraîneur kenn mënu ko fay. c'est vrai kenn mënoo ko fay xale bi bu demoon ba NBA di fayoo ko ay milliards mënul jël xaalis boobu jox ko entraîneur bi. li ñu naan entraîneur mooy sa deuxième part en. si biir si noonu parce que da lay tàggat dalay lay xamal àdduna da day am fu muy jaar ak yow fu bëri. kon yow tey boo demee ba nekk nit nit rek ba am yenn objectif yi am yenn principe yi rek. Mhm. entraîneur bi ci am part de responsabilité bu dee entraîneur boobu noonu entraîneur la. parce que tamit y a des gens yoo xam ne du ñu ay entraîneurs. am na am na coach woon y a des entraîneurs et des traîneurs. waaw kooku est-ce que du laaj jaay. ah laaj sama grand bu baax boobu maa ngi koy nuyu di ko ziar. dëgg am na ñoo xam ne mooy li dañuy ñëw fekk nga defar sa xale ñu ñëw. Mhm. jëlee ko fi ne la fii kii dalay tardel ak kii dalay nangam kii da yaa ëpp mbooy niveau yaa nangam yaa nangam récupéré ko yóbbu ko clubam. Mhm. booy bi niveau am chuté. kooku du entraîneur grand laay lu mu wax foofu dëgg la kooku traîneur la dalay dalay dalay tardé. te loolu nag moo bëri. parce que léegi ku tëb nekk entraîneur. ku doon ku tëb ku tëb ubbi. benn ubbi centre ku tëb ubbi centre léegi nag xale bi ngay jàngal BAB basket dafa am solo parce que am na étape yoo xam ne soo ko tëbee rek xale bi dootoo ko mën a rattraper. Mm-hmm. c'est fini des fois dañuy gis comme man fii des fois dañuy tëgg ay match amical di jouer xale bi day ñëw nga koy jéem a expliquer sax te pourtant ci erreur la. mais entraîneur bi sax ku ku leen di indi sax ci sans nettement kii warul sax mun a yor ay xale. parce que lu muy dugal ci bopp xale yi baaxul. parce que ñoom dañuy dañuy yaakaar xale bi day dem ba yaakaar na sax moom egg na. alors que mu ngi noonu moom boseegul sax. parce que loolu lañ leen di gëmloo xam nga am na entraîneur yoo xam ne da ngay jël joueur ne yaa fi mën yaa fi def lii yaa fi def lii yaa fi def lii <laughs> alors que dañoo juum waaw xale euh, faut chercher à être bien. Mhm. il faut toujours être très bien man loolu laa sama comme ça bés boo ñëwee bu très bien ñëwul bien ñëw. mais soo limité woo bien bien bien bés bu bien ñëwul assez bien ngay am. boo mhm. amul assez bien passable. passable ngay am toujours cherche très bien. très bien très bien très bien très bien. bien vrai uh-huh. que très bien chaque jour. mais yow cherchel très bien bés boo ñëwee ba très bien ñëwul rek bien ñëw. bien ñëw waaw.

noonu di dëkk si di ko ah, encouragé si loo xam ne eh, moom lay di di nga gis koo xam ne <laughs> très bien doo ko doo yaakaar oo ko waaw yi daal kii foogeewu ñu ko woon lii quoi <laughs> am na solo kon eh, loolu moom xam naa si eh, formation bu baax a baax bi lay doon bu ko buñ ko mënoon am réglementé ko ba nga xam ne dinañ am santé yu baax yi mhm. basketball sénégalais dina gën a avancé par rapport ak ni ko gisee nii mhm. mais par rapport ak légalisation et mhm. euh yow naka nga une fédération bi nga xamné mom est-ce que toll eh, fédération bi amna niveau bi nga suñu basket dina dina dina avancer dina dépasser fi nga la nek ni waaw xam nga <laughs> wax ci parce que ils sont un peu en avance sur nous lu poussé def mais que ñu ciy waxtaan ak entraîneur petit catégorie mais est-ce que ñoom ñu ngi waxtaan ak petit euh, entraîneur yi. bon c'est ça la question du ma waaw du ma ne déet. parce que am na yoo xam ne man assisté naa am na yoo xam ne assisté wu ma du lu ma assisté wul rek damay ne amul. Mhm. am na ay séance ay réunion yoo xam ne def nañ ko toog naa ñuy échanger ak ñoom mais su ñu demee nañ ñu bàyyi ñun ñu décider. maanaam yéen boo leen demee parce que man li may jànkonteel man entraîneur petit catégorie. Mhm. limay may fi bo démé demee 16 basket la ndjay mom lay jànkonteel. c'est vrai bo démé benen entraîneur petite catégorie. Mhm. nous vivons les mêmes problèmes. kon man sama problème. Mhm. problème laay njaay la. tey li ma lay wax ni bo démon ci laa ndjay mo wax la bo démon benen entraîneur petite catégorie mo wax mu wax la problème yi may dund. manam bo xolé les problèmes sont liés. même même la njaay def naa benn émission c'est la même chose qu'il répète. même chose lay répété. même chose même, même même taille. lay waxaat. loolu mën dox je pense qu'il faut que ñun. parce que man su ma demee ba indi solution rek. Mhm. xooluma sama intérêt. d'accord damay xoolu doxal petit catégorie. Laye Ndiaye bu demee ba toog di wax xoolu intérêt keneen ak keneen ak keneen. parce que boo seetloo si euh, banlieue bi amoon na benn euh, pat dimanche li ñu doon def mooy. talent banlieue boole si euh, centre yi nga xam ne ñoo nekkoon si banlieue bi su ma juumul mos nga bokk. bon man mosuma see bokk mosuma see bokk lan moo lool. <laughs> bon dama dul woon yëg information yi. ah dama dul yëg information xam naa xam naa xam naa xam naa li ngay soog a mais après li ñu doon soog a lii te xamuñu ñu woon quoi parce que ñu bëri dañu yaakaaroon ni sii bi sax fa lañu des. c'est man man dama xaaw a da nga xaw a laaj bi ñu bëri. mais si talent banlieue boobu noonu lañ doon profité di waxaale yenn saa yi taar yi mais si lañ doon familiariser centre yi nga xam ne ñoo nekk ci banlieue ba nga xam ne. ñoom dinañ xamante seen biir. waaw doon benn genre famille bu ndaw boo xam ne. dina tax xale yi xam ne c'est la famille nekkul loo xam dañuy tase xeex xuloo doon ay noon dëgg comme niñ koy jàngalee xale rek. basket bi basket la. foo la ree la. en même temps bu ñu tamit mën mbëkkante si biir terrain bu mais paree fa ay benn famille la ñuy doon. looloo waraloon sax su jiw ñu def euh, sa kii de sax talent banlieue bi nga xam ne doon def dimanche. dëgg la dafa doon am remonté moral. da remonté moral xale yi dañ doon sawar sax di yàqamti dimanche jot ba nga xam ne dañ fay def. Euh, suma juum sama réalisateur Ilima bi may mu mu may mu may ah, annoncé na cinq minutes moo ñu dese. Eh. daanaka pare nañ sax mooy euh, suñu suñu fu fu ñu terminé mooy championnat bi nga xam ne bokk nga ko en même en étant coach. mel na ni ja gañe nga fi ay trophée <laughs> loolu moom amul benn wenante nag si bi ba fa nekkee xaw ngaa ay sama sama sama kat yi <laughs> du ma wax ban kare la mais ba nga doonee coach ñaata trophée nga jël wala sa trophée yi naka nga ko naka nga dem euh, naka nga def ba sa xale yi gañi trophée yi nga xam ne moom nga jël. may nekk CBC jël naa fa ñaari trophée <laughs> ak benn euh, boo xam ne final lañ ma dóor. bi may nekk sélectionneur régional euh, tournoi des jeunes góor gi si Dieng final lañ ñu dóor Louga moo ñu dóor. Hmm. fii jël naa fi daaw rek daaw maa jël championnat bi en cadette. en cadet final woon minim fii ak ak cadet. minim fii dañ ko dóor en final. Lac Rose moo ko dóor waaw man ma dóor mhm. Castor en en <laughs> na solo mooy sama dernier trophée bu daaw waaw. ñaan yàlla ren ñu jëlaat yeneen rek. ah daaw si la si la yàlla rek mu bañ <laughs> <laughs> la sama seigneur fii tamit demaale woon tournoi monté. c'est vrai waaw ñoom mhm. mënu ma bañ wax ci ñoom parce que si ñoom laa njëkk mhm. débuté sama sama formation. donc mu nekk ay xale yoo xam ne vraiment dama leen di ñaanal ko dama leen di ñaanal ay xale yu yu yu dégg. Mhm. parce que bokk ak yenn xale génération bu pare tàggat leen dafay xaw a métti. Mhm. dafay xaw a métti trop mais nag ñoom ñu sax ay joueuses samay doom lañ fu ma leen yemloo fa la ñuy yem malgré bu ñu jógee tournoi monté tentative yi bëri nañu mhm. mais xale bu ci nekk ak parent bu ci nekk kuñ ci ñëw wax ak yow rek da leen naan dem leen seen entraîneur. échanger ñoom ñu waxtaan donc loolu moom dama leen ci remercier bu baax a baax a baax ma seen fay ci côté boobu ci confiance bobu tamit mhm. vraiment di leen di leen di si si si yar sa si yar gi sax la wax man jam mhm. euh, gën la gënul remarquer si euh, tournoi monde parce que ñun ñoo représenté woon PB Pikine Basket Club mhm, mais bokkuñu woon pool mais ñun dañ doon doon suivre dëgg la te gis nañ ne euh, yar bi même bu fekkee sax yenn sa nga ñëw ñuy jouer ñu gàñal ak yoy noonu mais la plupart équipe bi nga xam mom lañ door bo

Mhm. surtout fii au niveau de la banlieue dafay xaaw a métti surtout man sax laay wax parce que man sama terrain dafa xaaw a am cas bu particulier yow bi ngay ñëw gis nga da ngay gis nga gis nga nu mu demee vraiment damay profité waale ci émission bi di ñaanaat appel parce que ñu ngi ñaan boobu ba léegi di ñaan militaires yi fii ci camp bi ñu ubbil ñu porte mhm. wax vraiment ñu gën ñu yombal accès club bi fi ñëw kaas club bu fi ñëw kaas wax dëgg fa yàlla ma ci ñaanaale tam président fédération mu jàpp ci ñu dimbali ñu. Mhm. ñu fexe xool nu ñuy négocier pour ñu jéem ñu ubbil port bi. incha loolu daal xale yi dox bi métti na ci ñun ñëpp. Mhm. mais ñu ngi ñaan daal ñu ñu ubbil ñu di ñaan tamit. Euh, émission bi dem ba nekk émission bu mag a mag a mag émission internationale fi ngeen bëgg àgg yéen tamit yéen a ko xam yéen a yàlla na leen fa yàlla yóbbu mhm. waaw vraiment kontaan na trop di leen di di leen remercier bu baax a baax ci seen teewaay fii di di leen remercier coach si dalal di ñu dalal di remercier ñi nga xam ne ñoo doon seetaan euh, petit rebond kon euh, comme ni nga ko gisee tey ñu ngi woon fii si Thiaroye basket club en en même temps Eh, jam gan basket club di leen jox dig daje si benen course ci yeneen ndaanaan ci yeneen diwaan si canal Banlieue TV